سيدنا محمد للفتح لما أغلق والختم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد للفتح لما أغلق والختم لما سبق نصر الحق بالحق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 ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah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 uh, illa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 الله لا اله الا الله لا illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Ratna إله إلا الله لا إله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 Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah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

Love.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 آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم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 منا إليك يا رسول الله هذه إليك يا رسول الله منا هدية لاسيف الواهي جزى الله عنا نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم خير ما هو أهله جزى الله عنا شيخنا وسيدنا وسندنا وجدنا ومولانا الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وعن النبي آمين ورضي الله عن شيخ التجان ومن لنا إليه وسيل كاشف الغمم ومن تعلق بالأذيان قاطبة صب علينا إلهي أبحر العصام صب علينا إلهي أبحر العصام صب علينا إلهي أبحر العصام وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من ذوي الإيمان كلهم اقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم بل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم كذا وسولي وأحبابي أسولهم وعممهم رب تعميما بذي الحكم ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم وما الودي من الأذكار جملتها فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم إلى الله نشكو ما لنا من مطالب هو المنعم المعطي جميع الرغائب فمن شاءه يعطي ما شاء تفضلا عليه فإن الله مولي المواهب عبدك مولانا لدى الباب خدعا فيسر لهم ربي جميع المآرب لك الحمد إنا شاكرون جميع ما علينا بي أنمت من كل جانب لك الحمد إنا شاكرون جميع ما علينا بي أنعمت من كل جانب لك الحمد إنا شاكرون جميع ما علينا بي أنعمت من كل جانب علينا فتب يا غافر الذنب رحمة فقابل توبة أنت من كل تائب أمتنا على حب الرسول أمتنا على حب الرسول أمتنا على حب الرسول وحزبه وشيخ أبي العباس مهل المراتب أذقنا شراب الأنس أذقنا شراب الأنس أذقنا شراب الأنس واملأ قلوبنا بنورك يا رحمن واستر معين صلاة إله العرش مالك أمرنا دواما على الهادي وآل المصاحب يا حي يا قيوم يا مجيب لكل من دعاك يا قريب تفضلا منك ولو عساك أجب دعاءنا بمصطفاك تفضلا منك ولو عساك أجب دعاءنا بمصطفاك تفضلا منك ولو عساك أجب دعاءنا بمصطفاك أيضا معبا في حماكم قد نزل يا سادة لهم الزيادة في الأزل أنتم ولاة المد يا غوث ورا عونا لنا نصرا عيانا عن عجل أنتم ولاة المد غوث يا غوث الورى عونا لنا نصرا عيانا عن عجل أنتم ولاة المد يا غوث الورى عونا لنا نصرا عيانا عن عجل بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها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 ñu ngi santaat yàlla. ah ndeysaan est na nga doon tudd yow. Mass macha allah Mass am sa ñu ngi sant yàlla bu baax. nee ñu ngi sant yàlla suñu borom bu baax. di dollee ñaanalaat suñuy kilifa. waaye di dollee ñaanalaat nag suñuy kilifa. njëkkee ko nee ñu njëkkee ko ci. ki waaye ñun ki ñu yàlla booleel. muy Seyid Mouhamadul Moustapha Niang moom ak baayam bu tedd mi Baye Abdoul Aziz Niang alxaaji Baye Papa Baye Mor Silla seen wéttal ni maam Omar Birima daan wéttalee suñu maam jamaam Abdou Fati ak maam ma jama sëriñ bi nee na kon nuyoo bi foofu lañ koy jaarale ndax yàq daf du jël gan jëm nag ci ki nga xam ne ci ki nga xam ne moo ñu yilif nag ñun ñëpp mooy Pape Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour Xaaji Malick Xaaji Malick Sy Dabaax Serigne Mansour Serigne Mansour Serigne Babacar Abdou Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz te ñoom seen njaboot ñu ngi fi ak ñun yàlla na yàlla fayal ñu leen waaye njaboot googu Serigne bi tudd nee yàlla na yàlla suñu borom fayal ñu leen waati waawan gi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi fi soxna Ndey Faatu Diop bëgguma lim sëriñ bi nee na bëggul lim waaye bu sañoon kon Tiwaawan lay indi waaye bu sañoon moom Badiane Ndey Faatu Diop Tiwaawan gi yëpp lay andi man ci njabootam laa bokk moom mii sax sëriñ ñaan si njabootam la bokk waaye te ñun ñëpp andi nañu. waa da daayira yi. waa daayira mbaaw. waa mbaaw tamit. koskaas. koskaas bu mbaaw. ñoom. ñoom. dañoo waroon ñëw ñu teral leen. ñoom dañoo waroon a ñëw ñu teral leen décorer leen. ñoom ñu ñëw waaye waa mbaaw ñëw ñëw ñëw far nekk ay gan. ba pare di terale. ba pare nag nekk ay gan yuy terale. waa mutamassikiina yi. waa mutamassikiina yi tamit. ñu ànd. ñu ànd. ak soxna Lalla. ak soxna suñu yaay Lalla. ak li mu wax ci bàjjan Ndeye Fatou Diop rek. ak li mu wax ci bàjjan Ndeye Fatou Diop rek. Tani Yacine Diop. Tani Yacine Diop suñu yaayu daara. jëm nag jëm nag. ci suñuy soxna yi. su ci su ci ñun suñuy soxna yi. te ñun dañ ko waroon a bàyyeeg bàjjan Ndeye Fatou ak bàjjan Lalla ñoom. te ko waroon a bàjjeeg dañ ko waroon a bàyyeeg bàjjan Ndeye Fatou ak bàjjan Lalla. ñu santal ñu. ñu santal ñu. soxna Kati Diop. soxna maam Fama. ñoom ak seeni mbokk waa Tayba xam naa ne ñoom ku ñuy sotle dangay gañe ñoom ak waa tund wii nee nag du tudd benn dëkk waaye li wër ba ak li waraat gannaaw Tayba ñoom li ñu mën ak li ñu mënul yépp nag def ngeen ko waa dëkk bi tamit di waa kër maama ma di waa kër gumba ñun buñ dee waaye ñun buñ dee ay muhaajir ñoom ñoo ansaar yu na la yéen ay ansaar yu na ngeen te gis nga te gis nga daara amar gi ñu jànge daara amar gi ñu jànge ñun ñu bëri ci waa Tayba sëñ Mansour nee na ñu bëri ci waa Tayba ba Ñang bu Pape Moustapha Abdou Ñang bu Baye Moustapha sëriñ Baaba sëriñ Baaba sëriñ Cheikh mi sëriñ Cheikh mi sëriñ Lamine Badiane bu Badiane Ñanga ak moom mi ñoom ñëpp fa la ñu jàngee ak xaaji Mamadou Ndiaye ñoom ñëpp nag ñëw nañu ànd ak Baye Bachirou Omar moom muy turandoom ñëw nag ci mouvement xubbu taaha waaye sëriñ bi nee na yéen waa mouvement bi waaye wuyoo ngeen seen tur loolee nag yàlla yàlla fay leen moo xam xubbu taaha bu Medina la wala bu Maris wala Dalifort wala bu yaraax wala bu mbaaw yéen gàcce ngaalaama yéen bu ngeen seetaanoon waaye mbir mi ñaaw waaye nag dëgg dëgg seetaanoo leen wàcc nag ci ñii nga xamante ni dañuy tasaare lu baax dañuy tasaare lu baax muy maalikiya maalikiya ak asfiya ak Aïnou Mane TV ak ñu mel ni ñoom ak al ajdaat kon loolee ndono la ñun nag surga lañu bëgg nañu fii ak semaine bi waaye sëriñ bi nee na bu ngeen ko woowee mu wuy si leen ngeen fa tabaarakallahu fa tabaarakallahu ndax nit ku wéyee xelam yaa kuy kuy taxawaalu ci pindu teen yam yem yow ak kuy taxawaalu ci pindu teen yéen man nga caa daanu man nga caa daanu te ku say mbokk seetaan te ku say mbokk seetaan na mu ñaaw mu ñaaw kon ñu ngi leen di déglu kon nag ñu ngi leen di déglu lu ngeen ñu wax yéen lu ngeen ñu wax insha allahu ñu nga ca insha allahu ñu nga ñu ngi sant waa dëkk bi bu baax waa dëkk bi sëñ Mansour nee na mu ngi leen di seedeel mu ngi leen di sant bu baax di sant am di caam di sant xaaji am di caam ci wàllu sonorisation bi ak tant yi waaye nga defee ko nag ci sa sago waaye nga defee ko tamit ak xol bu yaatu suñu mbokk yu jóge Dakar suñu mbokk yu jóge Dakar fu nekk jóge nañ nekk nag jóge nañ fa ñëw léegi fi gis ñoom Abdoul Aziz Sall léegi nag la fi gis ñoom Abdoul Aziz Sall Sall ak ñoom Amath Si ak ñoom Hadji Ahmad Si waaye ñooñu day bàyyi waa mouvement bi ñu santal ñu leen ñu ngi nuyuwaat nag bu baax sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha di la gën a ñaanalaat yàlla waaye ne yàlla na yàlla fay la taxawaay yi di nuyu nag sëriñ Ousmane Amar moom mi fi nekkal mag ñi ak mag ñi fi nekk ñëpp ak jigéen ñëpp kon fa tabaarakallah ñun daal bég nañu. waaye suñu mbégte dafay dugg nag ci mbégteeg mag ñi maam Cheikhul Xaaji Malick nawloo la bàyyiloo ren si ñun kon nee kon ñun bu ñu tasee waaye mbokk yi dañoo war a nawlante kenn ku ne la sa moroom am ci yow bul xaar mu jël si ko kenn ku ne la nga am ci sa moroom yow joxoo ko ko yàllaa ko ko jox kon nag yàlla yàlla fay ci barke yonent bi bu dee nag waa Tayba yi ñi leen cay jiitu yéen ña leen cay jiitu gannaaw jigéen ñi gannaaw jigéen ñi ñoom Seexu Ñaŋ ñii ñoom Seexu Ñaŋ ñii ak ñoom Mor Caam ñoom ak ñoom Mor Caam ñoom démb guddee nañ fi trop waaye di sant nag suñu baay Baay Mansour Mbaye Baay Mansour Mbaye ndax nijaay la baay la di sant Mariane Ba di sant nag suñu yaay yaay Mariane Ba yaay Mariane Ba sëñ bi ne yàlla na yàlla fay la yow yaayu daara nga suñu baay baayam baay Basiru Ñang moo la boole woon ak moom nee dina wax Lamine ne ko Lamine bu Pape Cheikhou Hadji Lamine Ñang nañ jàpp ne moom mooy suñu porte-parole lii muy wax nag sëriñ Lamine Niang mii moo ko waroon a wax kon bu ñu demee nag ba toog bu ñu amee nag benn occasion ci télé yi daal dinañ ko joxe Lamine santal ñu mbooloo mi yëpp sëñ Mouhamadou Lamine Niang santal ñu li fi xew lépp mbokkul yëpp suñu doomu baay suñu doomu baay suñu soppe suñu soppe suñu sëriñ alxaaji Moustapha Sarr bi nga xam ne moom dafa judd ci mbaax waaye laalalu ko suuf fu ñu ne fu ñu fekk jox ñu loo xam ne xamuñu kan lañ ko am ci moom mbaa xam rat la jëfe mu ngi nii yëg ko bettuñu nag mbetteel bu mel nii ànd ak xaaji Ibrahima Guèye kon sëriñ bi ne fa tabaarakallah ne Pape Tamsir Diouf waaye jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen amit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne ku santul da ngay xarat alxaaji Omar jërë ngeen jëf ci barke yonent bi ñun daal da ngay ci sa kàddu ba doo xam sax lan ngay wax waaye ku cay ku say mbokk wér doo songu loo songu doo songu ku la man te du la yërëm duñ la bàyyi nga wax lu lay jural musiba ndeem nag yow bàyyi nga leen xel ñoom Pape Bachirou ñu ngi nii Pape Bachirou bu suñu turandooy bàyyi pa xaaji papa ñang fa tabarakallahu ni ko waa mbaayu waxee rek alxaaji imam pap samba diop moom pap samba samp mag la suñu bàyyi bàyyi abdul aziz al amin moo ko samp ca mbaaw te am na lu sëriñ babacar si waxoon cangaay ba mu fa demee ñu ne dañoo bëgg sëriñ babacar si jiiti mu ne dinaa barkeelu ci jumaa ji waaye njëmbal mu ni sampub sëriñ nag sampub sëriñ Babacar si bu ma ñaanul mu gën a dëgër bu ma ñaanul mu gën a dëgër du ma sa jéem leneen du ma sa jéem leneen loolu moo leen booleeg suñu bàyyi bàyyi Iliman Cissé mu moo leen booleeg bàyyi Iliman Cissé mu ne maam Seydou Hadji Malick moo leen booleeg bàyyi Iliman Cissé jàpp leen ci moom sëriñ Babacar si moo ko wax de ku xeeb nag ka sa kilifa yebal ca yow da koo ñemewul a biral rek waaye yow xeeb nga sa kilifa kon sëñ ne yàlla na yàlla fay waa Tëngéej ji tamit ah ñoom xaaji Samba Diagne yaayam moom xaaji Samba yaayam général la waaye yàlla yàlla yokku leeram yaa awa Selbe yaa awa maam Safeetu Njaay di présidente mouvement bii di xubbu taaxa Pape Lamine di porte parole bi Hadji Babacar Ndiaye di secrétaire général bi maam Fatou Dione di trésorier bi ba pare nag maam faatu loolu doyul dafa engagé waat yeneen poste te am na nag membre boo xam ne jar naa raasaatu ba am ko ku mel ni soxna Ndeye Fatou Cissé waaye mu ànd ak ñoom màggat ñoom Adja Mbaye ñoom Marème ñoom Marème mii moo fóot malaan mii ñu doon xadara tey kon waaye kon yàlla leen yàlla fay ñu wàcc nag ci médecin yi Serigne Mansour Gueye ak ñi mu àndal gis nga ak soxna Wuli Cissé mu nga ca ñay def consultation gratuite te moom moomu maam sëtu maam Seydul Xaaji Malick la sëtu maam Nafila ak maam Mor Xuja Si lii nag bu fi sëriñam toogoon moom nag moo koy wax waaye ñuy jéem rek pour waxal ko lii ñu koy waxal fa tabaarakallahu ñun daal lii na ngeen seede na lii yàllay kese rek la ci jub ndax ñun amuñu lu dul suñuy kilifa te suñuy kilifa li ñu wan moo di ni bu leen jëfe yéen ñii lu ngeen amul kilifa lu ngeen amul kilif téef ga te dee leen diisoog seeni mbokk foog naa bi ziyaar bii di bëgg a ñëw chaque dimanche réunion nañu fenn këram kër Safi Ndiaye kër Maam Fatou ak feneen maanaam Médina ak Maris ak yëpp association yi nga xam ne moom waaye juróom sëriñam dafa am ñu ko tudd muy sama papa sama sëriñ mu ne leen am ngeen benn xeer bu ngeen jam ñaar ak imam Papa Niang donte soxna jee la ñu waroon a gërëm borom kees ndax xaaji Papa Niang Papa Niang fa tabaarakallaa aw sàkket la rek mu ngi nii de moom bu ko bàjjan jee bàyyi woon mu daanu waaye bàjjan jee mooy xeer bi ko téye ne xaaji Pap dafa ñëw léegi waa Pagnang dafa ñëw léegi daal di koy jox dix mille francs te Papa Ñang mooy jaam bi nee mu foog ñaari dagg mooy dégg yi jëme ne ko jox nga ma ñaar jox naa la ñaar te nee nañu ku dagg bi jam yëgal ni yow sax ziyaar nangu na waaw ba kodde ñu ngi lay nuyuwaat kër kodde Alassane ku xam maam Seex Seydul Xaaji xam ko ku xam Koddeer xam Pape Bassirou Gueye waaye ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu bàjjan daba léegi lay nuyoo ak ak maam góor ak ñoom Lamine Gueye kon fa tabaarakallaahu ñun daal bu ñu fi nekkoon fii ñu toog di wax ba suba waaye du mat waaye danañu jéem nag waaye tamit ñi nga xam ne yombalal nañu sàkkuteef yi sëriñ bi ne ñu ngi leen di ñaanal yàlla kenn ku ne la nga def yow sa coobare nga ko defee borom oto yi borom oto yi ñëw nañu ku mel ni sëriñ Saliou Ndiaye ñoom ku mel ni sëriñ Saliou Ndiaye ñoom ak sëriñ Fall ak sëriñ Fall nga xam ne nga xam ne moom moo andi waa Maristes yi ak ci biiseeg yëpp. ñi ñew ñëpp dal ak euh, Serigne Moussa ndjay Serigne Moussa ndjay ci Maris ci Maris dafa yegni mom dafa yegni dama daan luye auto Serigne Mansour dafa daan danaan luye oto mu di ma saraxu naan ñaan naa la mu di mu ne ko dama lay ñaan bu ren dama bëgg jox sama oto mu ko dama lay ñaan Serigne bu luwee ren dama la bëgg jox sama auto mané ko man ma défé né ma la wara ñaan mané ko ma défé né man yow Serigne Moussa ma la wara ñaan moom nag dafa defee nag na mu toll donte nag ci kim ko def waaye fa tabaaraka allahu ni ñu gërëmee suñu soxna yi nee ni ñu gërëmee nag suñu soxna yi noonu la ñuy gërëmee jarbaat yi noonu la ñuy gërëmee tamit jarbaat yi jarbaat yu góor yi ak yu jigéen jarbaat yu góor yi ak yu jigéen ñoom Abdou Niang ak ak ñoom ñëpp ñoom ñëpp Alxaaji Bamba li ma koy yëpp yëpp Alxaaji Bamba Niang sëñ koy yëpp yëpp yëpp waaye ñoom Ahmed Fall ñii waaye jàmbaari jigéen yi ñu teg ko ñu teg ko si loxo soxna Zeynabu ak yaay Ayda si ñoom ak ñoom soxna Umu ñoom fa tabaarakallaahu billaahi Tiwaawan loo leen gën le ñu gën la ay mbokk kon fa tabaarakallaahu waaye yal na yàlla fayal ñu leen da ngay dem sax ba yërëm leen ndax liñ la déggal dañuy ñëw.

alxaaji ñang alxaaji ñang ak mulaay ak xaaji mulaay ñoom ñëpp ñoom ñëpp sëriñ aafe sëriñ aafe suñu mag suñu sëriñ suñu mag suñu sëriñ imaam lamin ñang imaam lamin ñang suñu rak suñu rak li sëriñ abdul aziz al amin doon li sëriñ abdul aziz al amin doon wax sëñ Mansour sëñ Mansour borom daara sëñ Mansour borom daara ji mu ne rakk juradul rakk mu ne rakk juradul rëkk rëkk te du la rekku te du la rekku waaye rakk la waaye rakk la waaye mag la rek waaye mag la rek sëriñ aafe da ngay mu ni Pape Abdou Niang nee na. waaw nee na comme Fatou waaw affaire yi dañoo bëri. waaw ne ñu ngi waxoon sëñ Afe Niang bu bay Maxtaar Niang. su ko defee ak mu bàjjal Fatia. moo taxoon ma ni sunu mag sunu sëriñ. nee moo tax suñu sëriñ. moo taxoon ma ni sunu mag sunu sëriñ. moo taxoon mu suñu mag suñu sëriñ. waaye Baye Abdou nee na. waaye Baye Abdou na. nañ moo gën moo gën. ku yentaan ku. ku yentaan ku yentaan. la bëgg a wax. loolu la bëgg a kon fa tabaarakallahu. kon ñu koy ñaanalaat yàlla. nekk ci wetu mag. nekk ci wetu mag. mooy moog mu tàng nga nekk ci wetu garab mooy ci wetu garab ñoo Ibrahima Mbengue jërëjëf. ah waaye sëriñ bi nee ñun ñii nga xam ne ay soldaaram lañ nee na jërëjëf. Baba Mbengue dina si waxtaanam. nee na xaaji Baba Mbengue. Ah, na koy mottali si incha allah de. ci waañ ñi nekkoon ci waañ ak soxna kat yi ñoom. ak soxna kat yi ak ñoom. ñu ngi leen ñaanal yàlla. waa Taïba ak ñoom ak ñoom Fat Diop ak Ami Lay Ami Lay ñoom ñoom ñoom Seydou Omar Ndiaye Omar maanaa daal sëriñ bi nee maanaa daal ñëpp ñëpp ñoom Mansour Diouf Mor Thiam Mor Thiam Mor Thiam ñoom dañuy baagante bëgg yërëm leen kon sëriñ bi ne fa tabarakallahu waa dëkk bi sëriñ bi ne ñu ngi leen di santaat léegi nag waa tawféex ñoom ñooy tund wii nee da doon bañ di tudd benn benn tund yi rek bàyyi benn zam-zam ak cil la saateeg mbër la bat sancoog ñillëg wala njéemeeg pekes fa dama gàddi yar lépp kon dañuy jox papa Abdou nag mu mu ñaanal ñu yàlla dolli ñu sutura yàlla na yàlla gën a dolli sutura wax leen amin yàlla na yàlla gën a dolli sutura amin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon Pape Basirou Fall kay wuy sëñ bi sëñ bi sa sa jarbaat sëñ Mouhamadou Moustapha Fall tamit ñëw na ak ak ak délégation نيوخون ناني بابشير سن بي تيكس لي سا واخ سن مصطفى نيوون ناكو نيوون ناكو شيخ موي سما انفيتا كات اه شيخ فال مو داو موم موي سيغي انفيتا كات واي دا فام دا فام اي طالبي واي نا شيخ فال دا غا دا فام اي طالبي احمد احمد اك بابا علي اك بابا واي نا واي نا موم داي فاتو سيرين واي نا شيخ فال داغا خامن داي فاتو موي سيرين نا كون فتبارك الله كون يالنا يالا فايك Baye Basiru sëñ bi ne nga dolli ana Baye Basiru wax waaw Baye Basiru Gueye wax kon nee kon dafa tabaarakallaahu Baye Basiru Gueye moom moom bay Baye Basiru Gueye moom bii kon dafa tabaarakallaahu ana ana Baye Abdou Baye Basiru Gueye am dolli Baye Abdou ña yaa war a ñaan. ah Baye Abdou sëñ bi nee na nga nañ ñoo ñu dugal aajo yi nga ñaan yàlla yàlla bu na suñu mujj daje yéen mag ñi yàlla leen fi yàlla bàyyi sagu kajoor ngeen sagu tayba ngeen fa tabarakallahu ñu ñaanal aafe ñang tamit fa tabarakallahu bàjjan ayda bu bàjjan fajjan bàjjan ak suñu yaay fajjan suñu yaay suñu bàjjan fajjan ñang moy bu Pam Maxtaar. ak Tan fadja ak serigne bi neena na ñooñ ñoo yoroondoo. waaye barki dem ba tay mu ngi naan nu may ñëwee. ndeysaan ñoom ñëpp rek. cheikhou ni ma fëttee alxuraan. nee ni mu fëttee wala ni ma ko meuna a maîtriser. wala fa tabaaraka laa ni mu ko ñak maîtriser non la ñak maîtriser. né non la ñak a maîtriser. tok di wax te duma du kon kon bokam yeb Sering ngi leen di ñaanal sëriñ Mansour ne mu ngi len di ñaanal yeen de matal ngeen yéen dey matal ngeen mu ngi len di ñaanal waaye ngeen xole ma yeen seen ak mat waaye nak te ngeen ñeewantal ko bañ ko xole moom mi ak mat dem serigne Mansour ne sopp na leen soxna na fi job bu yaa ma ma lii jawharatul kamal moom tamit ñu koy ñaanal yàlla awa faal dafa ci man bu bàjjen safeetu ay kumba Diop mi mi hôpital la daan ak kumba Diop ñoom be nga xam ne nga Dakar di ab secrétaire ci sëriñ bi rek ak ñun Ahmed Fall mu ngi ñew kenn xamul lu mu yor kenn xamul nu muy andi sëñ bi kon nag sëñ ne yàlla yàlla fay sëñ Afe jéggalul ko ay mbokkam nee niñ toll ci ñoom ñii rek la waxee kon fa tabaarakallah waaye sëñ Mansour nee na Ibrahima jërëjëf wala ñu ngi lépp ci wala jërëjëf sax sëñ Moustapha bàyyiwuñu kenn sëñ bi nee na jërëjëf kii maam sëñ Moustapha Sarr ñom seen mam kenn wu ko fi kon na ko ñëpp xam Pape ñang da fay wax lu reey ci moom te Pape Sëñ Bay ne masna naa dem Koungheul ñibisi gor gi ni ko dem nga sa kër Pape Moustapha Sarr mu ne pat mu ko ah danga faa demul mu ne pat mu ne ko jugal jël auto bi nga dellu sëtam nag tey moo toog nii ñu ngi koy ziar bu baax doon kenn nag papaam nag doon kenn ci xalifa bi fa tabaarakallahu dañuy yes waa léegi ba tey andi nañ fi ver ay verre mi yëpp ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy ñuy xaar rek moom fekkee ñibbiwul mu ngi fi ñu téye ak kurus téye ni nga fa ak benn poset bu ñëwul